de presse. nga ni ceeg El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah. jàngoroy nappkat ya day ah dara leerul ba léegi ni la dee mardi tali la soleil yéene kaa ne en tout cas résultat yi bes day waaw nee nañu daal wàllum tookeeg lu ni mel di wàllum pollution chimique googe mbir ma amu a bu ñu sukkandikoo nag ci ministre Alioune dama ne la ministre de la pêche waaw nee na la xam ne maanaam moom la nee na ci nappkat yi di wàllum prélèvement amu ci fenn foo xam ni kon wax na nag wàllum pollution chimique googe xam ne nag maanaam moom la nappkat yi di jëfandikoo libération yéene kaay ne ban ah mbir mi leerul ba léegi ne la déedéet c'est le total parce fukki fanu yàllaa ngi ni ne ginnaaw nag ba ñu feebar bu njëkk ba ba mbir mi demul dikul de dara leerul laa la wax waaye nag ñi xam ne maanaam ñoom ñoo yor wàllu woowee di chercheur yo la ñuy santaane mooy nañ dem wëri ay boroomi xam-xam yoo xam ni kon ci wàllum tooke yooyu la ñuy yëngu waaye mbaal di caax yi nga xam ni kon moom yi di jëfandikoo ni la leen ko xool ba xam boobee nga xam ne moom lañ jaglelee nag nappkat yi ci àdduna wërngal këpp day démb la woon mobilisation bu rëy moom la acteurs ya def dëgg la dama ne leen nappkat yi day waaw la nga xam ne moo leen ni miti nag le moo MAUX waaw yuuxu nañ ko démb de ba nu fi xam le ne dañu xeex wàllum immigration clandestine gi la Barça ak Balzac ji Alioune Ndoye ministre waaw daal di nay delloo njukkal nag njiital kap di Alioune Thiam Dakar Times gis nga yori nuk alalu ndox moomee waaw licence de pêche yo immigration clandestine ba dee ak napp cosaan gi lée nappkat yi indi nañ ci ay gindi dee dama ne la Alioune Thiam Ba mi nga xam ne nag moom mooy président du collectif des acteurs de la pêche daal dinay xam le ne danañu ci wàllum sensibilisation gi la ngir xeex wàllum bar sajjë balsax ji immigration clandestine yéene kaa mut baan ba yemu ca ndaxte nee na kuréel gi Alioune Thiam jiite waaw nee nañu danañu amal ab tournée ci biir dëkk bi yëpp nag laa la wax balaa boobu jeex ma ar ubil sur sa nañu kay sa jeex lañ jëm de ndax xoolal ma gaal gi lu tolloo téeméer musiba mbaaba ku may day ma ngay continuer ba léegi te dafa nuroo sax nag te cax dama ne la téeméer ci ay ndaw daal dinañuy réer juróom fukk la ñu sobe seen gaal ga ca boobam kon moo suux ñetti semaine nu yàlla la am ci biir ndox mi lée dañoo dem ba amuñu ndox te amuñu tam lekk allahu akbar gaal ga nag nee nañ ca booru mbuur gale la jóge woon 24 heures yéene kaa ne en tout cas ba ka nii bari na lool Adama Gaye ah nee na Eron Sall mi lée du kilifa irresponsable maar day taali waay grand Adama Gaye na maa leen wax li lée moom sëñ bi Sall mi taxaw di nelaw lay def ca jamono joo xam ni kon réew mi fépp ay sukuraat laa la wax waaye gis nga bar Sadio bal sàq joojee waaw waa Espagne day daal dina ñuy fipp nag maar di taali parce que seen ministre affaires étrangères ba day daal dinay xam leen ne ñi jaarul ci yoon wu baax yëpp danañ leen indiwaat seenug réew Arantxa González Aya noonu la ndaw si tudd waaw nee na mën a nekk nag laa la wax boo jaaree foo xam ne du yoon ba dugg ca dëkk ba tam danañ leen indiwaat tur gis nga wàllu wér-gu-yaram waaw bu subaa jàmm day bu daal ma nga ca diggante ministère finance ak trésor waaw waaw allahu akbar tuutànke yeeg bébé yi lañ leen di faje amatu fi waa ministère finance day nee dootul yàggati léegi lépp yemb laa la wax waaw évidence yéen kaay glace waay nag lii étudiants yi Thiès yi def ah. wallaay kenn mësu koo gis rafet na ati historique la maanaam université Iba Der Thiam ca waaw étudiants yi ci boppam kon ñoo defar benn monument daal di koy jagleel directeur général bu kurus ba étudiants yi yamu ca ndaxte nee nañu yàlla yoo xam ne duñu grève alhamdulilahi rabbil alamin Ah, uute ngeen ak politiciens dealers yi lée Barthélémy Dias ci Vox Populi waaw nee gis nga man dealers yi du wax ci seen mbir parce que gouvernement bu Macky Sall nekkul gouvernement bu bees groupe tapalekat la xuusma ñàpp ay rigolo bande de copains et de coquins yu fas yéene nag séedoo kon suñu alal ci lée partage bi tee ëppalaw Barthélémy Dias waaye comme nag Allah ne mbaa les traîtres ar kuy wor te bu ca yeggee day yàlla ca boppam dana lijjantil boppam traître yooyu di ak Macky Sall ba pare waaw nee na ñun mënuñoo dugg ci am gaal goo xam ne suux na gaal ga suux na di Boubacar Camara yemu ca parce que waayu Mor Ndiaye ji day ci laas nee na dem bi nga xam ne a Seck dem na ko ni la ci Macky ah waaye doy na tapale ak muus muus loog mbong mbong lu c'est l'exemple type de la tortuosité politique aw oh Moustapha Diakhaté day ci réew mi ko tijjee waaw nee na xanaa xamoo leen ne Idrissa Seck mi la dañ koo gasal kàmb en otage la ko ko Idrissa bañ naan ko sumaar ay jaa ki dëmm la Macky di gént laa wax waaye loolu Macky Sall xalaatu ko sax te gis nga Idrissa moom fi mu na toog yaru parce que bu ndaw bu ko defee ci yorinu Macky Sall bi mooy dàq ko mar du Italie Boubacar Camara day ci critique yéene kaay waaw nee na xanaa xamoon leen ne diggante Idrissa xam ne moo ma doon si yàlla Mbaye Seck waaye mbaa du ma yor Idrissa parce que Mbaye gis nga Idrissa Seck tam ku ko xam fasaam jongeem ay mbirum ambition mu wane ci kanamu Macky Sall bi mooy dax xam Macky ko idi moom ne naa mu ne ko us le quotidien ne kaay ne ginnaaw Idrissa Seck moomee ak àngooram waaw Alaaji Malick Gakou grand parti ñoom dañuy dem kon ca palais yaa jum wala maa jum ma ne am dama ne la Alaaji Malik Gakou ma ngay waaj dem de Gakou ngi dem gaa ko ngi dem dama ne la président Macky Sall ci boppam moo xamal waa APR ajuma ji ñu génn seen réunion ba secrétariat exécutif national ne leen Alaaji Malick Gakou tam dootul yàggati dara waxtaan nañ ba juboo dana ma gunge ewaay eh Samba yéene kaay ma jàmbal jàngi ci tas ko taxawaar kay dem nañ bay xam le ne Malick ministre d'état lay kon nag léegi leer dem na direct news day diggante Macky Sall ak Mimi Touré waaw dama laa na cabinet te xam nga mbir mi lan moo ci doy waar waaw ñi nga xam ni kon ñoo doon toppaate 2012 les traqueurs waaw ak nañ doon topp di les traquer ak substitut procureur Antoine Félix ñoom mi lée ñoom ñëpp ñooy toogoon ca taabalu conseil des ministres ba léegi allahu akbar ñoom Omar Sarr ak Macky ak Antoine Diome les éco yéene kaa ne coowal produit phytosanitaire ya day fel mbóot matt ak teeñ ak logement plan jaxaaya waaw ay doon jongu day lañ koy toppee bëri na te diis na laa la dërëm ak juróom laa la wax ministre Omar Sarr waaw moom seede yaa ko sànq waaye nekk na ministre léegi xanaa neex ca jamono jooja tribune yéene kaay nee na jàpp benn coalition bu mag ca opposition ma nag ma ngay judd Cheikh Bamba Dièye moo fa ne ak Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany dama ne la Cheikh Bamba ci boppam moo ko xam ci sendi bi kaay yu deeme te jàpp leen gis nga coalition boobee nga xam ne Bougane Gueye Dany la Ousmane <laughs> yéen daal fexe leen daal ba boo leen faloo yéen tamit pétrole bi lillaahi wa rasulihi bu leen ko fàtte parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy téléchargé ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono. xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal set nee na la presse en ligne autrement